cheikh mohammadu lamin baara mbàkke cheikh mohammadu lamin baara mbàkke mi ngi gane àdduna ci atum 1891 ci dëkk bu sell bi di Touba booba juróom soxna Aminata Lo mi ko meññi Serigne Touba seexul xaddim jële na ko ci dëkk bi di Daaru Salaam indi ko ci dëkk bu sell bi di Touba fi jumaa ji nekk jamono ji booba ku baax ki Serigne Touba seexul xaddim foofa la dëkkoon cheikh mohammadu lamin baara mbàkke mi itam foofu la ganee àdduna ci atum 1891 muy doomu soxna Aminata Lo ak ku baax ki Serigne Touba Seexul Xaddiim Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbàkke bi matee am aw tur waajuram Xaadim Rasuul moo ko tudde xaritam ba ngeen gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam mu jël turam wiñ tuddee Mouhamadul Amin duppee koko moom Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbàkke am na nag ñu bokkal soxna Aminata Lo ñu ràññee ci ku ñuy wax Serigne Ahmadou Mokhtar Dieng doomu Serigne moor ma Dieng Faaloo la ak soxna Aminata Lo ginnaaw Serigne Mokhtar Dieng mi soxna Aminata Lo am ak Serigne ma Dieng faalu bàyyi ko woon kër sëriñ moor ma jeng faalu ñëw nag nekk ak ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim ba am na ñaari doom ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim muy cheikh mamadul mustapha mbàkke ibnu soxna aminata loo ibnu xaadim rasul ak cheikh mamadul lamin baara mbàkke mi nekk caatum soxna aminata loo ak xaadim rasul kon cheikh mohamadul lamin baara mbàkke ñaar la bokkal waajur wu jigéen ak moom muy ñett kenn ki ñoo bokk soxna aminata loo muy sëriñ ahmadu muxtaar jeng ki ci des nag ñoo bokk soxna aminata loo ak rasul muy cheikh mamadul moustapha mbàkke moom cheikh mamadul lamin baara mbàkke nag mu ñëw nekk caatum soxna aminata loo feeñ jamono ci atum 1891 ci dëkk bu sell bii di Touba diir bu néew nag la nekk ak soxna aminata loo soxna aminata seexul xaddim mi waajuram wax soxna awa buso mi meññ cheikh mamadul faadal mbàkke booba soxna awa buso mi ngeeg tuut tànk bu tudd soxna mareema kunta sëriñ Touba seexul xaddim di xamal soxna awa buso na boole baara aminata loo ak soxna Mariama Kunta yor noonee ko ko ko ku baax ki waxee ni la soxna Awa Bousso boolee soxna Mariama Kunta ak Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbàkke yor ci ndigalul ku baax ki Sëriñ Tuuba Seexul Xadiim bi matee dal alxuraanul karim moom Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbàkke ibnu Sëriñ Tuuba Seexul Xadiim waajuram Xaadim Rasuul moo ko dalal alxuraanul karim ci dëkk bu sell bii di Tuuba moo ku ñuy wax Sëriñ Muudu Amar ginnaaw bi nag la leen Sëriñ Tuuba Seexul Xadiim jébbal Sëriñ Ndaam Abdourahmaan Lo ci Ndaam Daaru Xalimul Xabiir ci loxoy Sëriñ sëriñ ndaam abdourahmaan loo lañ nekk ba mokkal alxuraanul karim ginnaaw bi nag sëriñ tubaa seexul xaddim waxoon na maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru mu jël leen ngir jàngal leen xam-xam ci loxoy maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru la nekk tombeek sëriñ tubaa seexul xaddim dem ci géej gi ci atum 1895 ay at yu néew lañ ci teg feebar bu metti nag am ci réew mi feebar boobu nag ñetti doomi ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim mucc ñu ci woon muy cheikh mahamadul moustapha mbàkke cheikh mahamadul faadal Abdoul Mbacke ak Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbacke bi leen feebar bu metti boobu daanelee booba ñu ngi ci loxoy maam Thierno Ibrahima Faati Mbacke Ndaamal Daaru booba itam maam Thierno Ibrahima Faati mbàkke Ndaamal Daaru mi ngi leen yor ci dëkk bu tudd Guy Ngoraan Guy Ngoraan mu ngi tolloog fii ay saak Saajo nekk ci diggante garage Dakar bu bees bi ak bu Boofil booba foofu la maam nu Ibrahima Faati sancoon nekk fa ak ñoom feebar boobu nag mujjoon na sonal ñetti doomi ko baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ba maam amal daaru doon sàkku ci suñu boroom bu fekkee ne de ndinkaan li ko ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim dénk njabootam gi dafa nar a delsi mu naan ko baara aminata mu mamadul mustafaa mbakke ak mu mamadul faadal mbàkke dem nañ sa ginnaaw su loolu naree am na suñ boroom jël njabootam jot a am muy kii di sëriñ muudu awa balla mbakke waaye suñ boroom mujj na def sutura ci feebar boobu cheikh mamadul mustapha mbàkke mujj na ca wér cheikh mamadul faadal mbàkke itam mujj na ca wér waaye cheikh mamadul lamin baara Baara Mbàkke nag feebar bi dafa gën a metti nag ci moom mbir mi nag demoon na ba ëpp loxo feebar ba itam feebaru pes la woon feebar boobu nag ci la mu Mamadou Lamine Baara Mbàkke jëlee ñàkk a mën a déggam gi ndax mettiwaayu feebar boobu ko daloon ci feebar boobu nag la mujj jëlee ñàkk a a déggam gi ñàkk mën a déggam googu nag tax na itam nag lu baree baree bari ci Cheikh Mamadou Lamine Baara mbakke day daal di gàllankoor kon njàngum Cheikh Mamadou lemin Baara mbakke day daal di taxaw waaye soo demee ci mbindum Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke ma ngay wax ci ci biir am mbindam bi wax ne njàngum alxuraanam wala mokkaluk alxuraanam suñu borom mooy ki ko ko jagleel ak xasida gu yaatu la ci bind di sante ka kañ suñu boroom ci jagleel googu mu ko jagleel mokkaluk alxuraan moo tax soo demee ci mbindum cheikh mamadou lamine baara mbàkke mi ngi wax ci xasida googu mu bind di sant suñu boroom di wax ne mokkaluk alxuraanam suñ boroom moo ko ko jagleel ñu teewlu lenn ci biir xasida gi fu muy sant suñu boroom ci mokkaluk alxuraanam te suñ boroom jagleel ko ko xamante ni shaqaytani safa rabbaytani allamtani ya rabbi min ladunka ilman ba tey rek ci biir xasida gi cheikh mouhamadou lamine baara mbàkke mi ngi gën di leeral rek ne mokkal gu mu mokkal alxuraan suñ boroom moo ko ko jagleel subhaana man allamana leen doon dégtal day firndeel ne rek njàngum cheikh mouhamadou lamine baara mbàkke dafa mujj taxaw ndax feebar bu metti boobu ko daloon suñ boroom moo ko tegoon feebar bi suñ boroom itam mujj na indi saafara ci feebar bi ba tax na itam njàngum cheikh mamadou lamine baara mbàkke mujj na egg ci coobare yi suñu boroom feebar bu metti boobu ko daloon tax na itam lu baree bari gàllankoor ci cheikh mamadou lamine baara mbàkke ba tax na ñu baree bari lu dañ koy wax ci cheikh mamadou lamine baara mbàkke waaye li ci wér bariwul li wér te wér daal mooy feebar boobu moo gàllankoor lu baree bari ci cheikh mamadou lamine baara mbàkke cheikh mouhamadou lamine baara mbàkke mu wéy nag desandi ci loxoy maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru ba ni ku baax ki sëriñ seexul xaddim ñibbisee ci géej gi noonee leen fi sëriñ tuubaa seexul xaddim bàyyee woon bi mu dikkaatee itam noonu leen fi fekkee ndax suñ boroom mujj na def sutura ci feebar boobu sëriñ tuubaa seexul xaddim ñibbisi ci géej gi ci atum 1902 ci fukki fan yaak benn ci mois de novembre lu tollu juróomi weer la fi def amaat fi ak mbaaxaan tubaab bi duggaat ci ñu yóbbuwaat sëriñ tubaa seexul xaddim ci réew mi di gànnaar bi sëriñ tubaa seexul xaddim di dem gànnaar cheikh mamadou lamine baara mbàkke demul gànnaar ci réew mi la des xaar ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim waaye gànnaar googu nag kii di cheikh mamadul faadal mbàkke ak cheikh mamadul moustapha mbàkke ñoom ñaar dem nañ gànnaar waaye cheikh mamadou lamine baara mbàkke demul gànnaar fii la des xaar seexul xaddim ginnaaw gànnaar ca yéen jolof ca yéen jolof googu la ko sëriñ tubaa seexul xaddim joxe ndigal ngir mu dem ci sëriñ siréer loo ci sànnoo féete fa sànnoo si googu sax la taxawale kër moom cheikh mamadou lamine baara mbàkke ñu boole kook soxna suñuy wax soxna xari gay doomu cheikh mouhamadou lamine gay la moom meññ sax taawam bi ñu tuddee sëriñ moodu baara sëriñ tubaa seexul xaddiim jóge ci yéen jolof ci atum 1912 ñëwaat résidence surveillée ci dëkk bu sell bii di njaareem njaareem googu bi fi ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim nekkee cheikh mamadou lamine baara mbàkke nag dafa nekkoon ku teeloon ubbeeku ci biir réew mi ba tax na fu bare bare bari la cheikh mamadou lamine baara mbàkke daa dem ci nekkinu ku baax baax ki sëriñ tubaa seexul xadim dem googu mu daa dem nag jaaxaloon na lenn ci mag ñi bañ egge ko ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim di ko wax ne cheikh mamadou lamine baara mbàkke sa moom de du toog saa su ne mi ngi dem ak dikk loolu itam taxoon na sëriñ tubaa seexul xadim woolu woon kii di cheikh mamadou lamine baara mbàkke ci njaareem ci ginnaaw kalaame gu baree bari guñ koy def ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim seexul xadim téye woon na ko ci njaareem binduloo ko kaamilub alxuraan ngir di xool ba xam li ñuy wax ci cheikh mamadou lamine baara mbàkke wér na waaw wala déet liñ eggee woon ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadim di ko wax ne moom la Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke di def mooy Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke daal nanguwut a toog benn place Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke aw fasam daal la yor fu mu yendu tey bu subaa mu fanaani fa ca Seexul Xadim wooloo ci njaareem itam eggee na ko wax jooju ñuy wax ci moom Seexul Xadim ab kaamilu alxuraan la ko binduloo ci fukki fan ak juróom la Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke bind kaamil ba Seexul Xadim nag xam ne nit ñi dañuy yàq rek waaye li ñuy wax ci Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke wéerul ginnaaw bi nag la ko jox ndigal di ko wax ne nag na dem mbàkke kajoor féete fa kon loolu moo yóbbu ma mu lamine baara mbàkke mbàkke kajoor muy kalaameeg guñ ko doon kalaameeg seexul xaddiim di ko wax ne aw fasam daal la yor fu mu yendu tey bu subaa mu fanaan fa ca des dëkk boobu ko sëriñ tuubaa seexul xaddiim joxe ndigal nag ngir mu dem toog fa ci dëkk boobu nag la toog ba ni mu génnee àdduna ci atum 1936 bi mu ñëwee nag ci dëkk boobu di mbàkke kajoor laataa muy gor fii mu nekk wala fii ak njabootam Fall Mbàkke la nekkoon sëriñ Amar Fall Mbàkke nag doomu Cheikh Ibrahima Mbàkke Mbàkke Kajoor la def na ci biir kër sëriñ Amar Fall Mbàkke googu juróom benn weeri yàlla ginnaaw juróom benn weer yooyu nag la ànd tuuti gor fii mu nekk wala fii ak njabootam nekk ci Mbàkke Kajoor mu nekk nag ci Mbàkke Kajoor googu di jàng ak di jàngale di yar ak di tarbiya ba tax na def na lu baree baree baree bari ci dëkk boobu di Mbàkke Kajoor Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbàkke bind na ay xasida yu takkoo takku ak nag munaawirul bunyaan bind na itam xasida gu ñuy wax xadaanatul xayaar moom cheikh mamadou lamine baara mbàkke itam taalif na xasida gu tudd rumtu bi ahli badrin taalif na itam xasida gu tudd yaa zazilan lima yurid taalif na itam xasida gu tudd xamdan li rabbi xatta ya bada taalif na itam xasida gu tudd sahadatul abraar taalif na itam xasida gu tudd sax bul iblis moom cheikh mamadou lamine baara mbàkke ba tey ci am mbindam taalif na xasida gu tudd safinatul amaan ba tey bind na xasida gu tudd yaa xaasilan lima yurid ba tey ci mbindum cheikh mohamadou lamine baara mbàkke taalif na xasida gu tudd busraakiya arla tuuba xasida googu nag mi ngi ko jagleel ñibbi si ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim ci dëkk bu sell bii di tuuba muy ab marsiya bu mu defal waajuram xaadim rasuul ginnaaw bu mu bàyyikoo ci dëkk boobu di njaareem ñibbisi ci dëkk bu sell bii di tuuba ñu teewlu lenn ci xasida gi bismillahi rahmani rahim busraakiya arda tuuba al yawma nilti ala kull al biladi bi نجى المريدين من كيد المريد فحازوا الطفل والأمل فمثل ضيفك لم يظفر به بلد ما إن يرى بلد يبغي به بدلا هو الإمام ما خاب سائله فزائل الشيخ يحوي فوق ما صال فللورى كان مثل الوبل نائله ودافع عن جميع الخلق كل بلا marsiya boobu mu defal ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim di waajuram xasida gu yaatu la waaye yooyu ngeen doon dégg ci la bokk waaye Mamadou Lamine Baara Mbàkke bi muy tëj marsiya bi way yii la ko tëje lam yadrujul xalqa wasfan min maxaasinihi in kaana daasha aw saati mustaxilat yawma tujra ila tuubaahu tayyabahu yaaun wa baaun fa kullu su'la qad xasana miimun wa xaaun wa raawun wal miimu saakinatun wa waawun wa siinun wa siinun faqtafi nubala summa salaatu ala xayri wala wa ala man aw tuuba bihi faazat bi kulli ula bind na itam xasida goo xam ne nii feebar bu metti moo amoon ci réew mi mu bind ko ca mu tudde xasida ga yaa rabbana yaa rabbana ngir di ca ñaan jàngoro jooju dandu ci milem réew ñu teewlu xasida googu cheikh mamadou lamine baara mbàkke bindoon ci feebar boobu amoon ci milem réew te muy ñaan ci xasida googu feebar boobu jógee ci milem réew mu tënkee ko nag ci ya rabbana yaa rabbana ñu teewlu ko yaa rabbana nal wara tadarra'u li awliyaika ma'an li yashfa'u ilayka yaa rabbal wara yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana kullana wajjih lana lutfan wa ya ahad ya man ta'ala lam yakun kufan ahad Lamin Baara Mbàkke bindaatoon na geneen xasida ngir di ko jaglee rek musiba ak balaa yi wàcc ci mileem réew te suñ boroom jaarale ko nag ci ay feebar jëlaatoon na xalima itam bindaatoon geneen xasida ngir di ca ñaan suñu boroom itam balaa yi ak musiba yooyu wàcc ci mileem réew suñ borom saafara ko ñu teewlu xasida gi bismillahi rahmaani rahim yallaahu yaa samadu yaa rahmaanu yaa man lahul makaanu iksil ada wa jumlatul waba an ahli asri wakfini min daari ba tey ci mbindum cheikh mamadou lamine baara mbàkke jagleel na ab marsiya waajuram mammoor jaara magi mag bi mammoor jaara magi mag génne àdduna ci atum 1921 cheikh mamadou lamine baara mbàkke defal na ko ab marsiya ñu teewlu marsiya bi bismillahi rahmani rahim xadnaahuma man jaamia lil fadail taqiyan naqiyan taarikan liradail muhammadun jaara cheikhun man lam yajid lahu sabihan yubaaxe fi nidd kulla shaa'il fa qalbiya lam yafrax li umriya bacdahu kadalika kaana alqalbu min kulli aaqili tajarraba littaaati fi ddahri kullihi ala allahi ma in aaqahu min sawaafiri yabiitu yusalli summa yusbihu saa'iman wa ma juuduhu illa kaataahi waabili yulaazimu awraadan wa ilman wa xikmatan wa yaamuru bilmaaruf fi kulli naaziri falaw qaabida al arwaaxi qad qabila alfidaa la fadaahu lwara tullan bi kulli al afaadili fa askannahu arrahmaanu jannaati cadnihi taduuru alayhi الفخور بين الأوائل بجاه النبي المصطفى واتحاد نجوم الديان القر أهل الفضائل ku amoon yërmande la moom Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ba tax na bind na ab dénkaan na jagleel ko taalibe boppam ci misaal taalibe bi naka la mën a def ba jariñu ci sëriñam wala naka la mën a def ba jariñu ci buur bi tabaaraka wa taala na mbindee fii muy doomu aadama yi naka lañ mën a def nag ba jariñante ci seen biir mi ngi wax ne ne ku jaamuwul suñu boroom perte nga doomu aadama ak doomu aadama itam dañoo war a dimbalante ndigal itam saa su ne murit bi da ko war a sàlloo loolu daal ku ko deful perte nga wax ju bari daal la sëriñ baara wax ci ndénkaane jagleel ko mbooleem kuy taalibe murit ñu teewlu ko taala wa barakatuhu la yaqanuu bi anni laa amurukum ila maa yaqiikum dayri dunyawiya wal uxrawi wal yawma amartukum bil ijtihaadi fi taati llahi tabaraka wa taala wa taati rasulihi sallallahu taala alayhi wa sallam wal ijtihaadu bil xidma wala taxfalu an ziyarati faqad samictu alwalida radiyallahu anhu yaqul amma ba'd faqad udina lakum ziyarati wa amartukum bi an tatabadaruu ila بالمقدور عاقبة المنهيات ونعيتكم عن الكشف فلازم التوبة النصوح فإنها جالبة الفتوح واعلموا صالحا إن ربي بما تعملون بشير وأعلمكم بأن الساعة تأتي بغتة وينبغي لكم المبادرة إلى الامتثال الأوامر واجتناب المناهي وكل من لاقيتموه من المسلمين المنتسبين إلى القديم فاتخذوه حبيبا وأكرموه فصافحوه وقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من سافح أخاه المسلم سافحه الله يوم الجزاء ومن أعان أخاه المسلم أعانه الله يوم القيامة وأوصيكم بتقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلانية ولازموا توبة كل يوم وكل وقت ونية الخير ولازموا أحسن الظن ومن kaana yuminu billahi wa yawmi al axir falyaqul xayran aw liyasmut wa man lam yantazil fala yadumanna illa nafsah wa man balagathu hadihi alkalimat falyuballigha mimman yalih min daarin ila daar wa min qaryatin ila qarya wa min baladin ila balad wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu xasida yooyu ngeen dégg bokk na ci xasida yi ñu leen jukkil ci mbindum Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacke ngir ngeen xam ne rek Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacke bind bind kat la woon waykat la woon xam naa ku delluwaat ci kaggu yi ba yër mbindum cheikh mahamadou lamine baara mbàkke daa xam ne doomu soxna aminata loo bi ak xaadim rasuul daana bind cheikh mahamadou lamine baara mbàkke ibnu sëriñ tubaa seexul xaadim nag sanc na ay dëkk yu takkoo takko ak i daara ci atum 1907 jàpp 1908 ci ndigalul waajuram seexul xaadim joxoon na ko ndigal mu dem dëkk ak sëriñ siraloo ci sànnoosi ba tax na taaw mbii di sëriñ moodu alxafis mbàkke ñu gën koo xam ci sëriñ moodu baara Sanusi Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke itam amoon na kër Touba ginnaaw Sanusi ndax fi la ñaareelu xalifaam bi feeñe jamono di sëriñ Abdul Aziz Baara moo tolloo kër giñ ko moomale sax di kër Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke te wuuf jumaa ji Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke itam amoon na kër itam ci Kébémer dëkk boobu di Kébémer itam fa la doom ji di sëriñ ba Mbàkke Xujja Jeng feeñe jamono ci atum 1913 jàpp atum 1914 dem na sanc itam dëkk bii di Mbàkke Kajoor ci ndigalul waajuram sëriñ Touba Seexul Xadiim ba tax na itam lu ëpp itam ci dëkk boobu lañ feeñe jamono ci dëkk boobu sax la génne àdduna di mbàkke kajoor cheikh mohamadou lamine baara mbàkke itam sanc na dëkk bu ñuy wax taysiir dëkk boobu sax di taysiir màggalam gii ñu tudde màggalu mbàkke kajoor bu njëkk foofu lañ ko daa njëkk di màggalee fëla dëeloon doom ji di sëriñ moodu alxafis mbàkke ñu gën koo xam ci sëriñ moodu baara sanc na dëkk bu ñuy wax mbàkke njokk sanc na dëkk bu ñuy wax mbàkke baari ba tey cheikh mohamadou lamine baara mbàkke ci dëkk yim sanc sanc na dëkk bu ñuy wax xabbaan sanc na dëkk bu ñuy wax daaru raxmaan sanc na itam fu ñuy wax mbaraakan amoon na kër itam ci dëkk bii di lugaloo fii njabootam gi dëkke ci Touba di guy bind ci bërëb yi sëriñ Touba seexul xaddim bàyyi woon xel la ba tax na ak guy moo fa nekkoon sëriñ Touba seexul xaddim daana fa toog di bind ñaare mag ñi buñ masaa wër ku baax ki sëriñ Touba seexul xaddim te gisuñu ko su leen ñenn ñi masaa laaj ci ñi ko gis daa lañ leen wax ne ma ngi ci guy bind guy bind googu nag la Cheikh du Lamine Baara Mbàkke gor sanc ko tudde ko tur wa di guy bind ak yeneen ak yeneen i dëkk ak yeneen ak yeneen i daara yu Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke gor yoroon sanc ko nekk fa nag di liggéey di jàngale njàngalem waajuram xaadim rasuul di yar ak di tarbiya ci mbooloo mi ko topp ngir yaakaar ko ngir xaadim rasuul ba ci atum 1927 waajuram wa xaadim rasuul génn àdduna mu fob léppam nag jox kim bokkal benn waajur wu jigéen di mu cheikh mamadul mustapha mbàkke di ko xoole xaadim rasuul ba ni mu génnee àdduna ci atum 1936 moom cheikh mamadou lamine baara mbàkke mu nekk ku kiimaane ku bëgg njabootu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ku jëmi xaadim rasuul moom cheikh mamadou lamine baara mbàkke ba tax na amul mag moo mën a tudd ci yoonu murit te néewu la wóor la réew cheikh mamadou lamine baara mbàkke la woon magam cheikh mamadul moustapha mbàkke ñoo bokk benn waajur wu jigéen comme léppam la woon magam ma cheikh mamadul faadal mbàkke xaritam la woon ba tax na ma cheikh mamadul faadal mbàkke tudde na ko doom ndax sëriñ baara mbàkke falilu mi fi woon ba tey digganteem ak cheikh mamadul faadal mbàkke cheikh mamadul faadal mbàkke defoon na ay way ci cheikh mamadou lamine baara mbàkke di ca tagg jikkoy cheikh mamadou lamine baara mbàkke mbàkke ñu teewlu way yi cheikh dul faadal mbàkke defoon ci rakkam jooju di cheikh mamadou min baara mbàkke lillahi darruka min shayhin hawa rutaban قد دانها الأدب ناهيك بالأدب لا لا يجاريك في الميدان من أحد في العلم والحلم أو في الجود والنسب وبفضائل لا تخشى وأشهر ما فيك من حسن الأغداء والنظر عند ابتلكم وتلقى الوصول مع من دار رحب منهم ودا رحب لا زلت توليهم إحسان في أبد ginnaaw way yooyu Cheikh Mamadou Fadal Mbacké def ci rakkam Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké Mbàkke itam tontuwaatoon na Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke ciy way ma ngay wax ne magam jooju di Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke ay jikko yu kawe la am ci suñu boroom mu ne jikko yooyu itam puuse na Cheikh Mamadul Faadal mbakke ba jafe-jafe bu waaye man di amitim bu ñëwee mu saafaraal la ko moom Cheikh Mamadul Faadal itam lu wax suñu boroom fekk si ko ca te jikko yooyu yëpp itam ma ko doon ne ci waajuram Xaadim Rasuul ñu teewlu way yi Cheikh Mamadul Lamin Baara Mbàkke tontuwaat magam ma Mamadul Faadal Mbàkke تلقنك من عرب ومن عجم يا من خلائقه أحلى من الضرب أبوك كاشف الكرب المستجير به وأنت مثل أبوك كاذب الكرب ba tey ci kóllëre rek Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke rakkam Cheikh Mamadou Bachir wóllërew Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke la woon ba tax na Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke tudde na ko ñaari yoon doom Serigne Abdoulahi Mbacke borom dër bi Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke tudde na ko doom Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke tudde na ko doom geneen njaboot gim séqal sëriñ Tuubaa seexul xaddiim cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke itam tudde na leen doom sëriñ Amar Fall Mbàkke cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke demee di gori Mbàkke Kajoor tërëm la amoon juróom benn weer tudde na sëriñ Amar Fall Mbàkke doom sëriñ cheikh Awa Balla Mbàkke ibnu maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru xaritu cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke la woon ndax daaru Marnaan ak Mbàkke Kajoor soréewuñ ba tax na sëriñ Mamadou Lamine Baara Mbàkke tudde ñaari yoon doom sëriñ cheikh Awa Balla Mbàkke kenn kenn ki sax mooy ki fi des di sëriñ cheikh sidil moxtaar mbàkke di xalifa général des mourides sëriñ siréloo sànnusi wóola réew cheikh mamadou lamine baara mbàkke la woon ba tax na laataa muy samp kër ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim yebaloon na ko mu dem sànnusi ci wetu sëriñ siréloo cheikh isaa jenn bokkoon ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim naka noonu sëriñ ma yaasin ummi jëng mbokkum cheikh mamadou lamine baara mbàkke la ba tax na itam sëriñ ma yaasin ummi jëng tudde na doom cheikh mamadou lamine baara mbàkke ndax sëriñ baara jëng moom sëriñ ma suñu ummi jeng mi ngi fi woon sëriñ moodu maamun ñang nekk doomu sëriñ aafiye ñan sëriñ aafiye ñan ak cheikh mamadul faadal mbàkke ñoo bokk benn waajur wu jigéen di soxna awa buso def na ay way ci cheikh mamadou lamin baara mbàkke di tagg ay jikkoom ak melokaanam jikko ak melokaan yooyu sëriñ moodu maamun ñang doon tagg ci cheikh mamadou lamin baara mbàkke ñu mën cee ràññee taxaw gum taxaw woon njabootu sëriñ tubaa seexul xaddim gi rawatina taalibe yi ci bépp jafe-jafe buñ masaa am ci yenn feebar yi mu taxaw ñaan itam lu mu masaa wax suñ borom fekk si ko ci fonk gum fonkoon ñim bokkal xaadim rasuul muy njabootu xaadim rasuul gi seex yi toppoon waajuram wa di xaadim rasuul itam cër bu mu leen joxoon ak dëkk yi nga xam ne ni cheikh mamadou lamine baara mbàkke gor na leen ak xasida yi cheikh mamadou lamine baara mbàkke bind kàddu yu yaatu daal wala wayu yaatu daal la sëriñ muudu maamun ñang def ci jëmm jooju di cheikh mamadou lamine baara mbàkke ñu teewlu ko cheikhu ahmadul amin huwal amin nubnul amin xadimu ahmadil makin qudwatil muqaddami sakana fi Mbàkke Kajoor tuuba watay siiril asir lahu qusurun wa duyur oxra bila taawumi qad kaana jannatal murid wa jannatan anil marid wa kulli insanin turid anis siratil aqwami kaana waliyan wa nasir liman yaludu aw yazur wa yabtaghi bihi al khuyur aw indifa'in niqami kaana wiqayatan kajoor minal fusuqi wal fujur wama yajur bil ghurur wa qaidal aramrami fa huwa alimun amil bi ilmihi walam yamil lima yudillu aw yumil ani sawaa'il laqami abba wa raqa kulla man laaza bihi dhaka zaman in kana qalbuhu mutma'an minhu bila tahakkumi huwa alwali ibnu alwali qutbu zamanin aljali shaykhu الرجال القمل من عرب وعجم شيخ ولي وتقي وعبقري ونقي وصالح ومرتقي إلى العلا بالأعظم جاز مجال الرجال وحاز رتبة الكمال من ذي الجلال والجمال مخرجنا من عدمه هو الذي خص بكم بأيما أمر يكن إن خالكم كان بكم بربه المكرم هو الذي يخبرنا بما يكون علنا وكان سرا كمنا فينا بلا توهم هو الذي يعصمنا من البلاء يا زمنا وكل ما يؤمنا من محن وألم هو الذي يبرئنا من مرض يصيبنا وكل ما يخيفنا من فتن وسقم يا رب هب لي به ببركات حبه خديم عبد ربه إجابة بالنعم هب لي علما نافعا كذاك قلبا خاشعا كذاك رزقا واسعا كذاك حسنا محتوم اللهم صل على سيدنا محمد ginnaaw waay yooyu ngeen doon déglu te sëriñ Modou Mamoun Niang bindoon ko ci Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke ba tey ci kólle rek Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke njaboot gu jigéen gi mu Xaadim Rasuul amul kenn ci njaboot gi kum tuddewul doom ndax soxna mareema kunta ñoom ñaar la seexul xaddim boole woon ak soxna awa busa ngir mu yor leen ci seen tuut tànk ba tax na tudde na juróom-ñaari doom kii di soxna mareema kunta ndax seex mamadu lamin baara mbàkke daana wax ne soxna mareema kunta siisuma woon ci weenu soxna awa buso ba tey ci kiimaanu seex mamadu lamin baara mbàkke bi mu feeñee jamono ci atum 1891 tax na itam mag ñu bari ci lañ jote seen ngërëm ñu ràññee ci mag ñooñu maam cheikh ibrahima fall lamp baabul muridina sëriñ ndaam Massar Njaañ sëriñ Massamba Diop Saam ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu takk takku ci mag ñi kon boroom kiimaan la woon cheikh mohamadou lamine baara mbàkke seexal nañu takkoo takku ñu ràññee ci ku ñuy wax sëriñ ma koddu kase seexal na ku ñuy wax sëriñ maam moor jaara njaay seexal na ku ñuy wax sëriñ muudu soxna amar seexal na ku ñuy wax sëriñ ahmadu jaw ca waalo seexal na ku ñuy wax sëriñ asan géy seexal na ku ñuy wax sëriñ muhammadu omar seexal na ku ñuy wax sëriñ ibrahima sàll seexal na ku ñuy wax sëriñ mbay kan seexal na itam ku ñuy wax sëriñ ahmadu jaxate seexal na itam ku ñuy wax sëriñ usmaan ak ku ñuy wax sëriñ Moodu Soxna Diop sëriñ Mouhamadou Lamine Silla itam moo ko seexal seexal na itam ku ñuy wax sëñ Moodu Amar sëñ Moodu Amar keroog bi muy dal alxuraan moom Cheikh Moodu Lamine Baara Mbàkke ñoom ñaar la sëriñ Touba Seexul Xaddim boole dalal ndoo alxuraan ci dëkk bu sell bii di Touba sëriñ Mouhamadou taal Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbàkke moo ko seexal ak jàmbaar jii ko sëriñ Touba Seexul Xaddim boole loon di sëriñ ñaan Diop Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbàkke moo ko defar waaye nag ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddim ci la bokkoon laataa seexul xaddim di ko jébbal cheikh mamadou lamine baara mbàkke ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu cheikh mamadou lamine baara mbàkke defar ba toftal leen mbooloo ñuy defare jëmm jii di cheikh mamadou lamine baara mbàkke am na nag ay tur yu baree bari yuñ koy wooye moom cheikh mamadou lamine baara mbàkke ñu ràññee ci tur yu ko waajuram xaadim rasul tudde muy muhammadul amin am na ay turandoom yu ñuy wooye baara am na ay turandoom yu ñuy wooye lamin am na ñu koy wooye borom mbàkke kajoor am na ñu koy wooye borom guy mbind am na wooye boroom kàddu gi ak yeneen ak yeneen i tur yi ñuy wooye jëmm ji ji cheikh mamadou lamine baara mbàkke doomu soxna aminata looba ak ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim mu ngi génn àdduna ci dëkk bi di mbàkke kajoor ci feebar bu ko tëraloon bisub altene benn fan ci weeru tabaski ci atu 1354 ci gàddaay gi altene benn fanu tabaski ci atu 1354 ci gàddaay gi mu dëppoog lundi 24 février 1936 lundi 24 février 1936 ñu jële ko ci dëkk boobu di mbàkke kajoor indi ko ci dëkk bu sell bii di Touba keroog biñ koy jëli ci dëkk boobu di mbàkke kajoor moom cheikh mamadul lamin baara mbàkke ibnu sëriñ Touba seexul xadim cheikh mamadul mustapha mbàkke mi magam moo yabal sëriñ abibu mbàkke imam ak cheikh dul bachir mbàkke ñoom ñaar ñoo ko jële ci dëkk boobu di mbàkke kajoor indi ko Touba sëriñ mbàkke buso moo ko taxawu moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam sooy dugg ci armeer yi ci sa loxo càmmooñ booba njabootu cheikh mamadul lamin jaara mbàkke gépp nag ñu ngi ci dëkk boobu di mbàkke kajoor cheikh mamadul moustapha mbàkke moo yebalaat rakkam cheikh mamadul basir mbàkke ak jàmbaari ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddi di sëriñ mbàkke buso ngir ñu dem taxawu ginnaawu cheikh mamadul lamin baara mbàkke ci dëkk boobu di mbàkke kajoor kër gim génne àdduna moom cheikh mamadul lamin baara mbàkke ci mbàkke kajoor mooy kërul ñaareelu xalifaam bii di sëriñ abdul aziz baara mbàkke ci biir kër googu la cheikh mamadul lamin baara mbàkke génne àdduna cheikh mahamadul lamin baara mbàkke ibnu sëriñ tubaa seexul xaddi ni bi muy génn àdduna ci ñeen fukki at ak juróom ñaar la toll ay xalifaam nag nii la tëdde moom cheikh mamadou lamine baara mbàkke sëriñ moodu alxafis mbàkke ñu gën koo xam ci sëriñ moodu baara moo ko njëkk a wuutu ci le 24 février 1936 ba la 4 juillet 1952 ñaareelu xalifa cheikh mamadou lamine baara mbàkke mooy sëriñ abdul aziz baara mbàkke moo ko wuutu ci le 4 juillet 1952 ba le 22 mai 1990 ñetteelu xalifa cheikh mamadou lamine Lamine Baara Mbàkke mooy sëriñ cheikh Sidil Mokhtar Mbàkke ñu gën koo xam ci sëriñ cheikh Mati Lay Mbàkke moo ko wuutu ci le 22 mai 1990 ba nëgëni ñu koy ñaanal suñu boroom guddal aw fanam te wiral ay cëram te yàggal ko ci toogaayu cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke ak mbooleem njabootu cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke moo xam góor ak jigéen cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke nag am na bis buñ koy fàttaliku ndax daanañ ko fàttaliku bu njëkk benn fanu tabaski boobu mu génnoon àdduna xalifaam bu njëkk ba di sëriñ Mbàkke ñu gën koo xam ci sëriñ Moodu Baara Mbàkke bis boobu la ko daa maggal mu dëppoog bis bi Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke génnoon àdduna sëriñ Moodu Baara Mbàkke njabootu Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke gépp la ci daa àndal di ko màggal ci dëkk bii di Taysiir foofu lañ daa amalee màggaluk Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke ci xilaaf ak sëriñ Moodu Baara ba ni sëriñ Moodu Baara Mbàkke génnee àdduna ci benn fanu tabaski boobu lañ daa màggalal Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke ñaareelu xalifa Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke di sëriñ Abdul Aziz Baara boobu la wéyal muy benn fanub tabaski ci lañ doon màggalal cheikh mamadou lamine baara mbàkke moom itam màggal na ko lu tolloog ñaari at ci dëkk boobu di Taysiir ginnaaw bi nag la ko jëlee ci dëkk boobu di Taysiir sëriñ Abdul Aziz baara mbàkke nekk ñaareelu xalifa cheikh mamadou lamine baara mbàkke moo yóbbu màggal gi nag ci dëkk bii di mbàkke kajoor ginnaaw bu mu ko jëlee ci dëkk boobu di Taysiir màggal googu itam wéy nañ di ko màggal mbàkke kajoor ci benn fanu tabaski boobu ba ci atu 1990 ci atu 1990 na la fi sëriñ Abdul Aziz baara Mbàkke génn àdduna sëriñ Cheikh Sidil Moxtaar Mbàkke ñëw nag nekk ñetteelu xalifa Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke moom itam màggal na ko ci benn fanu tabaski boobu ay ati at ginnaaw bi nag la ko sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbàkke woo di ko xamal ne bu sañoon daal ñu jële bis boobu ci benn fanu tabaski ndax bis yooyu ñuy màggalal kilifa yooyu gënalu ko ci la sëriñ Cheikh Sidil Moxtaar Mbàkke nag fekk si bëgg-bëggub sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbàkke boobu muy ci atu 1995 jàpp 1996 sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbàkke keroog ca wax ja ma ngay yokkal sëriñ cheikh sidil muxtaar mbàkke di ko xamal ne jëlal bisum ñaar fukki fan ak juróom ñett ci rakkaat ji gàmmu bis boobu moo dëppoog bis bi sa waajur wa cheikh mamadou lamine baara mbàkke feeñoon jamono ci dëkk bu sell bii di tuubaa màggaluk cheikh mamadou lamine baara mbàkke lii moo ko jële ci benn fanu tabaski yóbbu ko ci ñaar fukki fan ak juróom ñett ci rakkaat ji gàmmu màggal ga itam kii di sëriñ abdul karim mbàkke màggal na ko benn yoon ci xilaaf ak sëriñ abdul aziz baara ndax booba ka sëriñ abdul aziz baara mbàkke dafa demoon màkkatal xam-xama sëriñ abdou karim mbàkke moo magoon ci njabootuk cheikh mamadou lamine baara mbàkke sëriñ abdul aziz baara di ko xamal ne wóotuma ci màggal gi te maggal ko màggal gi itam am na benn at buñ ko màggalul muy bi ko sëriñ tuubaa cheikh saaliyu mbàkke di toxale ci benn fanu tabaski di ko yóbbu ci ñaar fukki fan ak juróom ñett ci rakkaat ji gàmm lu dul loolu nag ci atu 1937 ba nëgëni ñi ngi koy màggal ñuy ñaan ci doomu soxna aminata looba kañ doon wooyee boroom kàdd gi ngir liñ ko denc ci ron kàdd gi ci ka ñu duppee sallallahu taala wa sallam dañ koy wooye ci turam wii de muhammadul amin yàlla nañu ko yàlla fayal te yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem te guddal nag fanu njabootam gim fi bàyyi moo xam doom la sët la ak jarbaat ak mbooleem taalibe bu yaakaar cheikh mamadou lamine baara mbàkke ak képp ku safoo cheikh mamadou lamine baara mbàkke lii di métti méttim réew mi itam yàlla na ko suñ boroom saafara ci darajay muhammadul amin amin muhammadul amin amin muhammadul amin amin muhammadul amin